ay ndax de dëgg la Cap-Vert nag jaraaw la Kër Moussa la Jandeer ñëpp ñu fi teew dama leen wax ni lii noo ko dëkke dootuñu wax lébu dañuy wax ñi dëkk Ndakaaru

moo dee tëdd rek ci ah, muy kilifa gu jafe ci jamono li tax mu jafe ci jamono mooy li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon ni ku amalul nit ñi njariñ doo amal yàlla njariñ waaye ku amal nit ñi njariñ amal nga yàlla njariñ yaa ngi dimbali nit ñi yaa ngi dimbali néew ju doole yi woote nanu ba noppi kenn ku ci ne dugaloon nga sa kàtt fa nga yaakaaroon ni doy na la waaye yàlla nag fal na président Macky Sall ndam lii yàlla na la yàlla ko muurloo yaa ñu nga ko seqal yàllaa la fal yàlla da li tax di yàlla teg ci sa loxo dafa rëy réew mi la ñun nag bu la ñaanee war nga wotelaan ak ñu la wotalul tey kon boo xëyee ñu tàllal nga sa loxo pour waxtaan ak ñëpp ñun ñëpp daan la ci gunge waxtaan woowu yàlla jur jàmm waxtaan woowu yàlla jur tedd nga waxtaan woowu yàlla jur sutura si réew bi waaye nag yéen ñii da ngeen xam ni réew mi fal na ba noppi comme fal na ba noppi liggéey ci topp liggéey mooy lan ki président ki yàlla teg ci bopp réew ni mooy président de la république institution yi nangu ko nit ñi woote leen ay jinne woote wu ñu ay nit a woote ñu wàññi mu nekk ci kanam kon ñun nañu ko jàppale ñu ngi ñaanal président de la république yàlla may ko bu dala jàmm ci mandat bii gouvernement bii mu fas yéenee taxawal yàlla jig réew du nu wax tey doléance ndax toogagul dañuy xaar ba mu prêter serment ñu soog a wax ñun suñu yitte waaye ñu sant ko nag ndax nit bu la defalee teraanga bala ngay leneen da koy sant. sa bàyyi nga ca bar sa baay gi lay gërëm sa baay sëriñ Saliou Mbacke maag Moustapha ànd Cheikh Abdoul Ahad Mbacke noo ànd lan ku mel na Bassirou Diagne ndax am nañu ko kii day mooy ca dëgg-dëgg diine li nu bëgg mooy Bassirou Diagne bi moo ko doxal